wa kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar ayuha al ixwatu alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi na ci dëkk bi ci wàllu diine di ay imaam ak i jàngalekat ak ñu jiite mbooloo ci lislaam di nuyu nag kilifay dëkk bi yépp bunt bi ñu war a bokk nafar tey ci suñu wàllu diine mooy waxda waxdatul muslimin faridatul wa darura bennoo goo xam ne jullit ñi war nañ koo bennoo nekk gi mu nekk farata ndax suñu borom tabaraka wa moo ko digle waaye nekk gim nekkitam itam lu mënta ñàkk ndax mooy tax ñu nekk ay jullit yu sunu jullit wér fokk benn boobu day am moo tax kon farata waaye lu mënta ñàkk la itam dafa bokk ci laltaay yu mag yi nga xam ne ci la lislaam tege digle gu muy digle mbooloo digle gu muy digle itam ñu tàppoo xol yi ànd waaye ŋàññi gu muy ŋàññi taqalikoo ak wuute ak tere gu mu koy tere loolu dafa bokk ci principe yi nga xam ne ci la lislaam tege suñu boroom tabaraka wa digle ko te wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yéen ñëpp na ngeen mooy na ngeen jafandu ci buumug yàlla te bu leen tàqalikoo ci aaye boobu de borom bi digal nañu ànd waaye digal nañu it ci biir aaye bi nu ñuy ànde li ñuy boole lu mu mooy xablullah muy buumug yàlla di alquranul karim di sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam di lislaam kon foofu rek fi lañ mën a daje ci lañ mën a ànde bu ci ñëpp jàppee rek te nañ ci war a jàppee dañuy daal di nekk benn ñu jële ci abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna allaha yarda lakum thalathan wa yasxatu lakum thalatha yarda lakum an taabuduhu wala tushriku bihi shay'a wa an taatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wa an tunaasixu man wallahu llahu amrakum wa yasqatu lakum qiila wa qaal wa idaata almaal wa kasrata alsu'aal rawahu ahmad abi hurayra jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne suñu boroom tabaraka wa gërëm na ci yéen jullit ñi ñett yoo xam ne gërëm na ko bëgg na mu am waaye bañ na ci yéen ñett yoo xam ne bëggul mu am li mu gërëm ci yéen mooy ngeen jaamu ko te du ngeen ko bokkaaleeg dara loolu yàlla bëgg la ñaareel ba yéen ñépp ngeen jafandu ci buumug yàlla te bu leen taqalikoo ñetteel ba ngeen di laayante biir ak képp koo xam ne am na lu ko suñu boroom tabaraka wa méngale ci seeni mbir maanaam am na kilifteef gu mu yor ci digganteem ak jullit ñi nañuy laayante biir ak moom ci di ko topp ci lépp loo xam ne lu jubla waaye di ko laay biir ci loo xam ne lu mu xamul la wala lu mu fàtte la wala lu mu juum la mu ne suñu boroom bañ na ci yéen ñett mooy di wax wax ju bari ci loo xam ne amoo ca xam-xam xiila wa qaal nee nañu nee na bañ na ci yéen itam di sànq alal mooy di yàq alal bañ na ci yéen itam barib laaj laaj boo xam ne jubluwuñ ca xam ngir jafe waaye werante lañ ciy jublu wala diingat cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah di wax ne wa hada al aslu al azim wa huwa al i'tisamu bi hablillahi jami'an wa an la yutafarraqa huwa min a'zami usuli al islam mu ne cosaan lu mag lii fondation bu mag bii ci lislaam te mooy ñépp jàpp ci buumu yàlla te bañ a tàqalikoo bokk na ci yi gën màgg yi nga xam ne ci la lislaam tege doon na loo xam ne dénkaane bi ko suñu boroom tabaraka wa dénkaane ci téeréem bi màgg na lool waaye itam réy na lool ni mu ŋàññe képp ku ko bàyyi ñi ko bàyyi woon te jiitu ci ahlul kitaab ak ñeneen ñu dul ñoom suñu boroom tabaraka wa taala na leen xas na leen ŋàññ yoo xam ne yu rëy la ay aaya yu li mu dikk na ci alquran di digal ñi gëm yàlla di leen soññ itam ci nu ñu war a taqoo mbooloom jullit ñi bokk na ca aaya boobu ñu jàngoon léegi waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu boroom xam-xam yi ci firi aaya boobu xablullah muy buumu yàlla googu mu wax ñii wax nañ ne mooy alquran ñii wax ne mooy sellal li ngay def yàlla rekk tax ñii ne mooy lislaam ci boppam waaye wax yooyu yëpp dafay dellu ci menn maanaa ndax jàpp ci alquran du mën a wér te am ak sellal ku jàpp ci alquran itam te sellal kooku jàpp na ci lislaam ni mu ci war a jàppe ibnu jarir at-tabari ci tafsir aaya boobu muy wax ne wa tamassaku bi diinillahi alladi amarakum bi yéen ñëpp jàpp leen ci diine yàlla jim leen digal sàmm kóllëre gi nga xam ne moom la kóllëranteeg yéen ci téereem bi ci ngeen war a nekk benn war a daje ci kàddu dëgg yéen ñëpp wen ngeen war a nangul suñu borom tabaraka wa taala suñu borom dellu wax ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum turhamun suñu boroom ne ñi gëm yàlla dëgg te seen ngëm yàlla wér ñooñu foo leen fekk ay bokk lañuy doon doon nañ ko ba noppi ndax ngëm-ngëm moo leen boole mu ne kon nag la ca des mooy na ngeen yéwénal na ngeen sàmm na ngeen rafetal diggante mbokk googu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gàddaayee ñëw madinatul munawwara bokk na ci la mu njëkk a def mooy al muaqa bayna al muhajirina wal ansar mooy mbokkale mbokkook lislaam diggante ñi jóge makka te mel ni ay doxandéem lañu ak diggante ñi ñu fekk ci Madina mel na ñooñu ñoo dëkk ci dëkk bi waaye mu bennale leen mbokkale leen ngir kenn di bañ a xoole moroomam kii batub doxandéem la wala kii di xoole moroomam kii kat moom moo ma gën a sañ ci dëkk bi moo fi gën a dëkk waaye la leen di boole rek mooy lislaam la di boole mooy kenn ku nekk di wut ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala yonente bi wax ne laa yuminu ahadukum atta yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsi rawaahul buxaari kenn ngëmam du wér lu dul ne dafa bëggal mbokkam jullitam li mu bëggal boppam nga gis ne bennoo googu boo gisee ñu ne la daruura la mënta ñàkk dafa lënkaloo ak ngëm jullit bi du mën a nekkul jullit te ngëm yàllaam wérut te ngëm yàllaam du mën a wér wala muy mat te fekk na bëggantewut ak mbokki jullitam bennoowul ak ñoom suñ borom dellu wax ne wal muminuuna wal muminat baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna anil munkar wa yuqimuuna alsalata wa yu'tuuna alzakata wa yutiicuuna allaha wa rasulah ulaika sa yarxamuhum allah inna allaha azizun xakim sur tawba suñ borom ne ñi gëm yàlla ñu góor ñi ak ñu gëm yàlla ñu jigéen ñi kenn ku ci nekk sa soppeb moroom nga sa jege ñaale moroom nga kuy dimbali sa moroom nga itam mu ne dañuy diglante lu baax di terante lu bon di taxawal julli di joxe asaka di topp yàlla ak yonentam mu ne ñooñu day suñu boroom tabaraka wa taala xal set na leen a yërëm gis kon bokk na ci liy taxa dugg ci yërmandey suñu borom tabaraka wa taala bennoo kooku bëggante kooku jàppante googu diggante ñi nga xam ne gëm nañ yàlla suñu borom delloo wax ne fattaqullah wa aslihu zaata baynikum wa atiu allah wa rasulahu in kuntum muminin suñu borom ne yéen jullit ñi na ngeen ragal yàlla te ngeen defar seen diggante na ngeen yéwénoo benn ñagas-ñagas walla benn dëngoo bu mu nekk seen diggante yéen jullit ñi na ngeen topp yàlla akub yonentam ndeek gëm ngeen yàlla gis nga kon defaroo googu war a am ci diggante jullit ñi condition la ci ngëm yàlla gu wér ay jullit yoo xam ne dañoo dëngoo mënuñoo ànd di noonoo loola tegtal la ci ne kon seen ngëm yàlla wérut seen ngëm yàlla matut ndax borom bi daf ne in kuntum mu'minin ndee ngeen yàlla noonu ngeen di def kon ku ko deful li muy tekk mooy sa ngëm yàlla matut naka noonu itam ay ahadis yu limu dikk na yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ci digle nu ñu war a nekk ci mbooloom jullit ñi di ŋàññ itam ak tàqalikoo di ko wattandikuloo jullit ñi jële dañ ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu jële ci yonente mu ne nadara allahu abdan maqaalati haadihi fa xamalaha fa rubba xaamilil fiqihi fiihi xayru faqih wa rubba xaamilil fiqihi ila man huwa afqahu minhu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne yal na yàlla leeral xar kanamu jaam boo xam ne dégg na samay wax mu jàpp ko wot ko ba yóbbu ko ci keneen koo xam ne moo ko koy jottali waaye nee na barewaa na loo ko jot li nit ab xam-xam nee na kooka gën la koo dégg mu ne ñetti mbir day xolub ab jullit waru koo ñàkk waru faa ñàkk a nekk mooy lu muy def mu sellal ko yàlla rekk tax te itam muy laayante biir ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yii ne ci lislaam boroom xam-xam yi ak ñi yore baat waaye taqoo mbooloom jullit ñi nee na loolu faw ab jullit melokaan yooyu war na nekk ci moom ñu jële ci Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu mu jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne aleykum bil jamaa wa iyaakum wal furqa fa inna shaytaana ma alwaxidi wa huwa min allisnayni abad man araada buxbuxata aljanna falyalzam aljamaa rawahu tirmidi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne maa ngi leen di dénk mbooloo te ngeen wattandiku nag taqalikoo mu ne seytaane day kenn ku beru la gën a waaye nee na jullit bi lu mu gën a wétliku ak moroomi jullitam rek nee na seytaane gën koo sori mu ne kon ku bëgg ëllëg nga bokk ca ñay nekk ca digg aljanna na nga takkoo mbooloom jullit bi al imam shafii ne wa man qaala bima taqulu bihi jamaatu almuslimin faqad lazima jamaatahum wa man xaalafa ma taqulu bihi jamaatu almuslimin faqad xaalafa jamaatahum allati umira bi luzumiha imam Shafi rahimahullah ne koo xam ne li jullit ñiy wax ci diine loolu rekk ngay wax fa ñuy yem fa nga yem yokkoo ca loo xam ne jullit ñi ànduñu ak yow ca loola bokk ak li ñu xam ci lislaam nee na kooku mooy ki ànd ak mbooloom jullit ñi waaye nee na ku wuuteeg nag li nga xam ne moom lañ xam ci lislaam jullit ñépp di ko wax nga andi leneen lu wuuteeg loola nee na kookee mooy ki nga xam ne moo wuuteeg mbooloo ma mbooloo moomu nga xam ne digal nañ ko mu tax ko ñu jël ci Abdullah ibni Omar radiallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa nee na inna allaha la yajmau ummati aw qaala ummata muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala dalala wa yadullahi ma aljamaa wa man zazza zazza ila annaar yonente bi alayhi salatu wasalaam ne samaaw xeet te mooy jullit ñi ñu daje ci ak réer ñoom ñépp ñu bokk ne ci loo xam ne ak réer la loolu du am mu ne loxob yàlla nag mi ngi ànd ak mbooloo mi yàlla mbooloo mi la àndal mbooloo mi nag buñ koy wax du fa mbooloo ma gën a bare rek wala fa gën a xumb waaye mbooloo ci lislaam buñ koy wax mooy ñi nekk ci dëgg lu ñu ca wéet wéet ak lu ñu ci néew néew néew ñooñu la ñuy tuddee mbooloo waaye lu ñu bari bari bari te wuuteeg dëgg te dëgg nag mooy li yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ak i saxaabaam loola rek mooy dëgg wa bi bima nuzila ala muhammad wa huwa alxaq wa huwa alxaqu min rabbihim nee na ñi gëm li ma wàcce ci muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolaay dëgg ñooñee ko gëm nag daje ca ñooñee ñooy mbooloo ndax lool rek moo mën a dajale mbooloo mbooloo mu mën a daja dëgg te duutuñu tàqali ko mooy mbooloo moo xam ne looloo leen boole lu ñu néew néew néew rek bu ñu nee mbooloo ci lislaam loolu lañ ci jublu ndax meneen mbooloo mu ànd te lool boolewu leen ànd sax nekku fa dëgg dëggi ànd nekku fa ndax jëmm yaay ànd waaye xol ya du ànd moom la borom bi naan sa taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta dalika bi annahum qawmun la yafqahun mépp mbooloo mu lay niru ne dañoo ànd te la leen boole du loolu nga xam ne moo wàccoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di alquran ak sunna yam ca kepp am na leneen lu leen boole lu dul loola xamal ne ñooña dañoo jege waaye ànduñu dëgg-dëgg borom bi ne soo leen gisee da ngay defe ne benn lañ waaye seen xol ya lu wute la noonu suñu borom tabaraka wa taala diglee ànd bi noonu la teree ko bi mu ne wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahum albayinat wa ulaika lahum azabun azim yéen jullit ñi bu leen mel ne ñi leen fi jiitu woon dem ba taqalikoo juuyoo ci gannaaw boo xamee ne amoon nañ ay tegtal yu leer nañ yu bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala yonent yi andi loolu leen ko waaye ñu bàyyi ko fa topp seeni bànneex ba juuyoo tàqali ko nekk ay noon yéen jullit ñi bu leen mel noonu ndax ñoo kat mbugal mu metti moom la leen borom bi tabaraka wa taala dig wa ulaika lahum azabun azim loolu ci lañuy ñuy tegtaloo ne kon tàqali ko ci diggante jullit ñi minal kabair mi ngi bokk ci bàkkaar yu mag yi ndax bépp bàkkaar boo xam ne suñu boroom tëkkoo na ca mbugal rek loola bàkkaar bu mag la te nee ne wa ulaika lahum adabun azim ñooñu tàqaliko day mbugal mu mag moo leen di xaar fa suñu boroom tabaraka wa taala ibnu jarir tabari ne fala tafarraqu ya machara almuminina fi diinikum tafarruqa haulaai fi diinihim wala tafcalu ficlahum wa tastannu fi diinikum bi sunnatihim fa yakunu lakum min adabillahi alazim misla allati lahum mu ne yéen mbooloom jullit ñi bu leen ci seen diine nit ñi leen fi jiitu woon taqalikoo ci seen diine ñoom leen def la ñu def buleen jaar ca seenu yoon su ngeen ca jaaree kat loolee ñu am ci mbugal ñoom ñooñee taqalikoo yéen itam da koy am alqurtubi rahimahullah ne fa man baddala aw gayyara aw ibtadaa fi diinillahi ma la yardaahu llah walam yadan bihi llah fa huwa min almatrudiina an alxawdi almubtaidina minhu almuswaddi alwujuh mu ne képp koo xam ne wuutal nga mu ne indi nga leneen teg lu bokkul ak li yonente bi sallallahu alayhi wasallam andi woon wala li yonente bi alayhi salatu wasallam andi woon soppi nga ko jox ko beneen melo bu bokkul ak ba mu ko joxoon moom andi ci diine ji loo xam ne suñu borom diglewu ko nee na ki def loolu bokk na ci ñi ñuy dàq ëllëg ci déggu yonente bi alayhi salatu wasalam ñi nga xam ne dañuy sori lool dégg ba ñi nga xam ne seeni xar kanam day lëndëm bu yowmal xiyaamee ñooñu soppi dara ci diine ji ci lañ bokk suñ boroom ne wa anna hada sirati mustaqiman fattabicuhu wala tattabicu subul bikum an sabilih dalikum wasaakum bihi laallakum tattaquun suñ boroom ne sama yoon day mi ngi nii jub di lislaam kon nag topp leen ko bu leen topp nag yeneen yoon yi nga xam ne ay nit danañ di ko fent di wax ne xëy na yaatal lañ ci jublu wala méthode jàngale la wala nu ñu ko mën a tudde rek waaye lu ñu fent la di ca jaarloo ay nit wutal ko ay sart yu ca nit di bokkeeg yum mu ca dul bokke suñ borom ne bu leen topp yooya ndax su ngeen ko toppee rek da ngeen taqali ko fa tafarraqa bikum an sabili dana tax ngeen sore yoon wa mu ne lii nag mooy dénkaane bi mu leen dénk ndax ngeen ragal yàlla ibnu kasir rahimahullah ci bi muy firi aaya boobu jële ko ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne amara allahu almuminina biljamaa wa nahaahum an alixtilaafi wa tafarruq wa axbarahum annahu innama halaka man kaana qablahum bilmiraai walxusumaati fi diinillah wa naxwi hada mu ne suñu borom tabaraka wa taala dafa digal ñi gëm yàlla ñu taqoo mbooloo mu tere leen wuute ak taqalikoo xamal leen ne ñi leen fi jiitu woon li leen alak ba tax ñu dara dajeeg mbugal ëllëg mooy werante ak i xuloo ci diine werante xuloo ci diine loola moo leen alak suñ boroom ne inna alladina farraqu diinahum wa kaanu shiyaan lasta minhum fi shay innama amruhum allah thumma yunabbiuhum mu ne yonente bi alayhi salaatu ñi tàqale seen diine seen diine ñoom ndax diine yàlla moom kenn mënu ko tàqale jenn la amma nit ki nag diineem moom li mu jàpp ne mooy diineem mën na koo tàqale ndax lam ca yokkal boppam ak di ko ca wàññil boppam loola diinee ma léegi moo tax mu ne farraqoo diina hum nekk ay kuréel nekk ay pàcc ñooñu suñu borom tabaraka wa taala ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam jotoo teeg ñoom dara lasta minhum fii shay séqoog ñoom dara ndax yow jenn diine nga andi te mooy diine yàlla te kenn mënu ko taqale ndax benn la kenn mënta am beneen kaamil kenn mënta am beneen yonent kenn mënta am beneen la yooyu kon su ci jullit ñi yabee taqali ko du am waaye su fekkee dañoo indi leneen nag loo xam ne dañuy wax ne mooy tax nit ki nekkub jullit dëgg ku àndul ak kooka wala ku bokkul ca loola san jullit matut kookee mooy ki nga xam ne taqale na ndax keneen it ku mel ne moom day def lu mel na lam def moom it bu wutee mbooloo mu wut mbooloo bu wutee njiit mu wut njiit lu mu wax ci njiitam moom it kookay wax ko ci njiitam moom itam su ko defee taqali ko dal di ñëw ñooñu nag la borom bi de yonente bi alayhi salaatu wasalaam jotewul ñoom dara innama amruhum ila allah seen mbir ci yàlla lay ñëw direct yàlla moom moo bind ñépp ku baax ak ku dëng ñépp ci moom lañuy ñëw thumma yunabbi'uhum bima kaanu yaf'aluun su ko defee nag mu xibaare leen wan leen la doon jëf wa bada lahum sayyi'aatu ma amilu lu ñaaw lañ doon jëf nag daal di feeñ ci seen kanam ñu daal koy gis suñu borom tabaraka wa taala melal ak tàqalikoo ne melokaanu bokkaalekat la foo fekk ñu mënta ànd li muy tekki mooy seen pas-pas moo nekkul pas-pasu tawxiid pas-pasu tawxid yu waxit nit ñi bu ñu wéetalee suñu borom tabaraka wa taala rek daal di mën a nekk benn su fekkee tawxid nekku fa nag boobaa nekk benn duutu fa mën a nekk moo tax borom bi ne wala takunu min al musrikin min alladina farraqu diinahum wa kaanu chia bi xisbin bima ladayhim fariqu bu leen bokk ci bokkaalekat yi mel nañ ñu ne waaw bokkaalekat yi mooy ñan mu ne mooy ñi tàqale seen diine nekk ay kuréel nekk ay pàcc kenn ku nekk wut aw tur wutal ko njiit wutal ko ay sart ak i melo yuñ cay nekke te ba noppi nag jàpp ne moom rek mooy diine moom rek mooy lislaam ku ci nekkul nekkoo ci diine kullu xisbin bi ma ladayhim farixu mu ne kenn ku ci nekk daldi di bég ca la nga xam ne ca nekk naka doon it ay xadis yu bari dikk na di ŋàññ tàqalikoo ak di ko wattandikuloo ñu jële ci abi zar nil xifaari radiallahu an mu jële ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne man faaraqa aljamaata shibran faqad xalaa ribqata al min unuqi rawahu abu daawud yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ku tàqale mbooloom jullit ñi lu toll ne sibra muy lu tuuti tuuti rek nga sore ko jullit ñi andi loo xam ne sore na la ak ñoom nee na yow summi nga buumug lislaam ci saw loos fekkonte na lislaam lu ñu yeew ci saw loos la summi nga ko fa man araada an yufarriqa amra almuslimina wa hum jami fadribuuhu bi seyfi kainan man kaana rawahu ahmad mu ne ku ñëw bëgg a tàqale mbooroom jullit ñi fekk ñu ànd fekk jullit ñoo xam ne ñépp benn lañ ànd benn waaye ñëw fa bëgg leen a tàqale yeneeni xalaat am lu muy woote ca biir jullit ña am ñu ko cay wuyoog ñu ko cay ñàkk wuyu te loolu fu mu amee rek tàqale ko daldi am fu amee koo xam ne ñëw na fekk jullit ñi jàpp ci alxuraan jàpp ci sunna bokk jàkka di julli bokkule lépp ci lislaam am ku am lu mu andi loo xam ne daf cay woote di wane ne loola moo gën li nit ñi nekk kookee la yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne fadri booxu bi sey nee na nañ ko dóor ak jaas yi ak ku mën a doon maanaam su fekkee lislaam am baat di atte kooka lay atteem bu nanguwul a dellu gannaaw ca loola nañ ko rey ndax mook ku murtat ñoo bokk atti ndax dafa bokk ci liy tax imaan wér jullit ñi nekk benn kon ku leen bëgg a jële ci seen nekk benn googu day mel da leen bëgg a jële ci lislaam moo tax atte ba nekk rey bi mu tuddee teqalikoo gi nga xam ne diine yi fi jiitu woon teqalikoo nañ ko muy yahood yeeg nasaraan yi wax nañ ne xeetu lislaam wi itam danañ teqalikoo ñoom it ay kuréel yu bari te kuréel yooyu yépp benn rekk moo ciy taxe ñu ne ko benn boobu mooy ban mu ne aljamaa mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbooloo mi ñooy ñi nekk ci li ma nekk maag samay saxaaba kon aaya yooyu di digle ànd ak xadis yi ak xadis yi nga xam ne day digle ànd gi ak di tere taqali mooy tekki ne kon ànd gi farata la ndax mooy tax suñ ngëm yàlla wér mooy tax suñ ngëm yàlla mat mooy tax ñu nekk ñoo xam ne ñu am tawxid lañu waaye mbooloo moo xam ne ñëpp lislaam la ñuy tuddoo ba noppi nekk ay noon di xeebante ci seen biir di weddante ci seen biir li muy tekki mooy kon pas-pas ya mooy li nga xam ne moo desee wér am na leneen luñ carax loo xam ne bokku ca waaye ñëpp buñ yamoon ci li borom bi tabaraka wa wàcce ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam benn la doon li tax nag mu nekk daruura lu mënta ñàkk mooy suñu boroom daf koo digle te suñu boroom li mu digle ku ko defut dangay ngay daal di def bàkkaar bu rëy boo xam ne da ngay yeeyoo daje ak mbugalam moo tax mu ne wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahum albayinat wa ulaika lahum azabun azim ñu ne bu leen bokk ci ñi nga xam ne kat yàlla dafa digle ànd ñoom ñu bañ a ànd te nag am nañ tegtal yu leer yu leen mën a boole ñoo cay teg leneen bu ñu yemoon ci alxuraan rek yem ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam rek loola bu boobaa dañuy ànd waaye nag buñ ne loolu doyut fokk ñu yokk ci nangam kon day mel na loolu ñoo ko tey loola moo leen tàqale moo tax ñu yeyoo mbugal ñaareel ba su ànd amul xëccoo dafay am te xëccoo dafay néewal doole jullit ñi day tax ñu ñàkk seen kàttan day tax kenn duutu leen wekk borom bi ne wala tanaasau fa tafshalu wa tadhaba rixukum wasbiru inna allaha maa sabirin bu leen xëccoo su ngeen xëccoo rek dal di doyadi seen kàttan jëpp dem su ko defee noon yi dal leen di yàpp noon yi daal leen di néewal doole suñu boroom tabaraka wa taala dafa digal ñi gëm yàlla ñu mbokkoo tey dimbalante ñu tàqalikoo nag duutuñu mën a mbokkoo ñu mën a dimbalante yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne inna al mumina lil mumin kal bunyaan yasuddu baaduhu baadan wa sabbaka asaabia rawaahul buxaari yonente bi alayhi salaatu wasalaam misaal jullit nim war a mel ak moroomum jullitam mu ne dafa war a mel ak tabax tabax xam nañu ne ay birig la yoo xam ne benn bu ci ne bu bero woon nga birig par birig la waaye dañ leen a boole ñu taqaloo sësaloo wuñu rek bu fekkoon ne biir gi dañ ko tegale rek benn bu nekk denn ak moroomam waaye taqaloo wuñu loola kon bu boobaa du nekkub tabax waaye lor sax lay nekk ndax day daanu te bu boobaa mën naa lor waaye da ko misaal cib tabax yonente bi alei salatu wasalaam daal di rabbale ay baaraamam rabbale ay baaraamam ne nii la ñuy mel dañuy duggante kenn ku nekk jàpp sa morom borom bi wax ko inna allaha yuhibbu alladina yuqatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanum marsuus mel ne ab tabax lañ boo xam ne birig ya benn bu nekk dafa jàpp morom ba ba boo ko doon toj tey mënatoo koo dindi birig par birig waaye birig boo bëgg dindi dana am loo bokk ca morom ma jàppale ci ndax nañu jàppaloo jullit ñi noonu lañu war a bel loolu nag su tàqali koo amee juuyoo am loola duutu mën a nekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam misaal ñi gëm yàlla ni ñuy mel nee na ni ñuy mel ci seenug yërëmante seenug soppante seenug yëgante day mel ne benn yaram boo xam ne lu ca metti rek yaram bépp yëpp kon l'islam li ciy cosaan mooy ak ànd tàqalikook ñàkk ànd su ñëwee jàngoro la ju ci gaar mi ngi mel ni nit li ciy cosaan mooy wér ak wér mooy cosaan feebar moom luy gaar la luy dikk la waaye bokku ci te tàqalikoo googu feebar la buy dal jullit ñi feebar nag pour mën koo faj lay jiitu mooy ñu xam sababam lu koy waral fexe ba daw la ko doon waral su feebar bi yokkootul rek dana yomb faj tàqali kon yi koy andi ba ca jiitu mooy ak réer réer nag buñ ko waxee mooy safaanu xam loolu moo doon sabab ci tàqali xeet yi fi jiitu woon yu bari la waraloon seenu taqalikoo ak seenu juyoog seeni yonent moo doon ak réer rek gis nga borom bi tabaraka wa di ko wax ne wa jaawasna bi bani israil albahra fa ataw ala qawmi yaakufuuna ala asnaamin lahum qaalu ya muusa ijcal lana ilahan kama lahum aliha qaala innakum qawmun tajhaluun gis nga ñi réer toujours ñoom dañuy proposé loo xam ne du jub seeni santiment la ñuy demee suñu borom nee na Moussa bi mu àndeek ak banu Israël te ñu traversé géej gi te Firaw nag des ca géej ga moom la nee na dañoo romb ay nit ñu yor aw xëram di ko jaamu nit yi Moussa yi de Moussa defal ñu nu ni aw xëram comme nit ñi amee aw xëram fi mu lu baree baree bari ci nit ñi nit dafa bëgg toppandoo nit dafa bëgg toppandoo lool daanaka lu mu gis nit. jiitu ko ca def ko rek moom itam day daal di bëgg a def lu mel noona walla lu ko gën te léeg-léeg sax ba xam lu baax la am déet waaye gannaaw def nañ ko rek xew na rek nu nit nañ ko def ñu ne Moussa dañoo bëgg nga wutal nu aw xiram ngay gis kon tàqalikoo ci diine fi muy faral di amee ni muy juddoo mooy ña xamul ñoo koy proposé ñaxam fi mu ne ngay gis lu baree baree bare ay xew yuy xew ci réew mi ay nit a koy fent ba noppi dem ci kilifa diine nag wala njiitul diine ne ko dañoo bëgg nga jox nu ca ndigal fekk ñoom ñoo ko fent ba pare a jàpp nañu bis ba pare ba tëral seeni mbir nag bëgg na mu yoonalal leen ko ñu ne joxe na ci ndigal kilifa kilifa gaa ca joxe ndigal lam leen war a wax mooy déedéet loolu jaaduwul bu mu fi amee bu leen ko def loolu bokkul ci diine waaye daal leen cee ñaanal leen tubaarkàlla wéy leen ca dana baax su ko defee nag ñu daal di yër kàddoom nag fu ñu demati nañ ne moo ci joxe ndigal gis nga ñii kon dañ doon laaj Moussa ndigal ne ko ij àllanaa ilahan kama lahum aliha Moussa dañ lay laaj nga jox ñu ndigal daal ñu wut aw xiram comme ñi nit ñi amee ay xiram Moussa lu mu leen wax innakum xawmun tajhaloon yéen nit ñu réer ngeen gis nga innakum xawmun tajhaloon yéen da ngeen a réer gis nga loolu bu fekkoon te ku ñuy ñëw di laaj ci luñ bëgg a sos ci diine di la ca laaj xalaat loolu nga leen di ton ne leen yéen da ngeen a réer da ngeen a xamul loolu du diine daal leen di wax la war a def kon boobaa mbir ma faral yëpp xam nga de yonente bi sallallahu alayhi wasallam sax saxaaba yi ak li ñuy màgg lépp waxoon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam mas nañoo dem ci ab xare gis yéefar yi am ak garab gu mag goo xam ne ci la ñuy wekk seeni ngàndaay tudde ko garab goo xam ne mooy garabu cummikaay fa la ñuy waaje fa la ñuy waaje takk xare bi ñu ko rombee yéefar yi am ko ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo bëggoon nu nga wutal garab gu mel noonu goo xam ne ca la nuy wékk suñuy jaasi fa la nuy waaje bu ñuy xare ji ij'al lana zaatu anwaar kama lahum zaatu anwaar yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne innaha sunan wax ngeen la nitu Muusa ña waxoon Muusa wax ngeen ma ko tey lañ ne ko woon wutal lu aw xëram yéen it lii ngeen ma wax parce que ñii seen garab googu du garabu kese rek ndax bu doon garabu kese rek garab goñ jot mën nañ caa wéet gannaaw dañoo wut genn goo xam ne jàpp nañ ne fa lañ war a waaje kon jox nañ ko beneen dimension boo xam ne weesala nañ ko garab rek gannaaw weesal nañ ko garab nag xëram lay daal di doon ndax lenn lu ne moom la ko yàlla doone la soo ko ca joxee leneen lu bokkul ak loola rek jox ko beneen jagleel boo xam ne yam bokkal loole meluñu na garab gii nga bëgg a wax ne yëmut ak garab yi ci des wala pàkk bii nga wax ne yëmut ak pàkk bi ci des wala bis bii nga wax ne yëmul ak bis yi ci des jàpp ca loo xam ne jàpp nga ci bis moomu rek la war a am bu ca démb sax da nga naan ñëwagul bu jàllee nga ne démb la woon jàll na man a jàpp na bis bi daal moo gën bi ko jiitu moo gën bi ko topp te loolu amoo ci benn tegtal loola bu boobaa tàbbal ci diine ji lu ci bokkul lay daal di doon am lahum suraka shara'u lahum min ad-din ma ya ya'zan bihi Allah dugal ci diine ji loo xam ne suñu borom joxu la ca ndigal boobaa nag jaamootoo yàlla xiram ngay jaam boo jaamoo noo xam ne yàlla digalu ko rek léegi moom jaamootoo ko yàlla li liñ koy jaamoo mooy li mu digle li mu digle waaye saa booy def loo xam ne donte yàlla nga ko tuddee waaye moom defloowu la ko moom soxlawu ko moom ko jaamootoo ko léegi bu fekkee nit a la ko defloo kooka ngay jaamu bu fekkee sa bànneex a la ko defloo sa bànneex ngay jaamu jaamu moom mi ngi dellu ca kala ko digal rek wa ma umiru umiru illa li yaabudullah muxlisina lahu ddin moo tax borom bi tabaraka wa taala boole wax ci diine loo xamul ci bakkaar yi gën a rëy mu ne qul innama xarama rabbi alfawaxisa ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baxya bi xayril xaq wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana wa an taqulu ala allahi ma la taalamu ngeen di waxal yàlla lu ngeen xamul te bokk na ca waxal yàlla loo xamul nga jàpp ne bis bii moo gën a rafet bis yeneen yi ci des ba tax na la ngay def ci lu baax nga jàpp ne bis boobu nga ko war a jagleel wala weer wii nga ko war a jagleel wala barab sàngam lañ ko war a defee ji foofu la ëppee tuyaaba wala ci diw sàngam bu ko jiitee wala bu ko teewee ca la appe tuyaaba yooyu yëpp yaa ngi waxal yàlla lu mu la waxul est ce que yàlla la wax loolu wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun yaa ngi waxal yàlla lu mu la waxul yàlla waxu la ne bis bii moo gën moroomi bisam waxu la ne barab bii moo gën moroomi barabam waxu la ne jëmm jooju moo gën moroomi jëmmam yow yaa ko wax rek loolu borom bi ne araamal na ko wa an taqulu ala allahi ma la taalamun mi ko dendaleeg bokkaale wa tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana wa an taqulu ala allahi ma la taalamun ngeen di bokkaaleeg yàlla loo xam ne amu leen ci benn lay benn firnde di waxal yàlla loo xam ne waxu moo tax ibnul qayim rahimahullah ne wa aslu shirki wal kufri huwa al xawlu ala allahi bila ilmin ko wax ci madaari ibnu qayyim rahimullah nee na cosaanul bokkaale ak kéefar yépp mi ngi dellu ci wax ci yàlla loo xamul alxawlu ala allahi bila ilmin nee na ci la bokkaale dellu ci la kéefar dellu kon li jiitu ci li tàqale nit ñi mooy ñàkk a xam ñi xamul mel na ñi xam dañ leen di topp maanaam ñi xamul jiitu ndax ñooy joxe xalaat yi ñooy xalaat ki xamul moom toujours day xalaat léeg-léeg xër la ci jublu baax lu baax sax la ciy jublu léeg-léeg waaye bu dul noonu nañ ko jubbanti xam ngeen ni ñu ñëwoon ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ni muy jaamoo yàlla ñu wax leen ko ñoom ñu mel na ñu ko xeeb kii daal di ne man duutuma dog koor damay dëkke koor mooy ne kooku lu baax la jublu waaye nag tegu ko ci xam-xam kii ne man duutuma nelaw guddi damay fanaanee julli guddi rek duutuma nelaw guddi kii ne man duutuma denc ay soxna kenn ku ci nekk jàpp ne loolu lu baax la waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf leen a daal di jubbanti leen fa man raxiba an sunnati fa laysa minni bu dee lu baax ngeen bëgg maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla man damay woor di dog dëkkewuma koor damay julli guddi waaye di nelaw itam tey damay denc ay soxna sama doxiin nag sama sunna nag ku ko won gannaaw bokkatoo ci ma gis nga ñoo ñooñu ko loolu ñàkkoon a xam luy sunnaam la kon ba ñu ñu sunnaam waaye dañ koo xamul kon bari waa na ñuy am lu ñuy fent ak lu ñuy bëgg a def ci diine loo xam ne ak xër ak jàpp ne luy maye tuyaaba loola moo leen cay dugal waaye nag ña nga xam ne ñoo njiit ya ñoo war a mat ay njiit waaye njiit su fekkee day mujj ña mu jiite lu ñu ko wax mu topp ca moom boobaa jiitootul léegi dafa toppee léegi boobaa jiitootul ndax gannaaw ñoo ñaay indi xalaat ba te lu ñu indi rek mu ànd ca loola kon bu boobaa moom jiiteetul ñaareel ba ci indi tàqalikoo googu mooy liptidaa mooy biddaa te biddaa réer a koy jur ndax mooy yooyu ñuy fent bu ko réer mayee bañ fent ko bàyyi ko mu jàll day daal sax nag nekk fa biddaa bu sax réer kon mooy jur biddaa foo fekk ab biddaa rek ak réer a ko jur maanaam ku bëgg a def ci diine ndax ñooñu loolu ñu waxoon tey de damay duutuma naafi la duutuma nelaw guddi damay ko rek di naafi la loolu bu jàlloon biddaa la damay dëkkee koor loolu bu jàlloon biddaa lay doon duutuma denc ay soxna noonu lu ñu andi ci diine ja bokku ci lay moo tax ci lay juddoo moo tax dañuy wax ne biddaa mooy lu ñu fent ci diine loo xam ne dañ koy nuróoleeg lu ne lu bokk ci biir diine dañ cay jublu ak ëppal ci jaamu yàlla ñu ne tariqatun fi diin muxtara tudaai alsharia yuqsadu bi suluki alayha almubalaqatu fi taabudillahi subhanahu maanaam biddaa ki ko fent dafa bëgg a gën a yokk ak jaamu yàlla dafa xeeb xëy na li ñu tëral ci sunna ci jaamu yàlla mu bëgg a gën a yokk ak jaamoom loola moo ko cay dugal te nag foo ko fekk la muy def bay nuroo ak diine day nuroo ak diine maanaam dana ca am loo xam ne ci diine la bokk waaye jamono jam ko wutal wala lim ba mu ko wutal wala place ba mu ko wutal loolaa koy def biddaa ñu bari dañ dul xam ne jaamu yàlla ab lim ci jaamu yàlla gi la bokk su ko amul sañoo ko ko wutal su ko amee sañoo koo wees ndax jaamu yàlla gu amul lim boo manqué lee lim ba wala nga ëppal ko mu yàqu mais mel ne tey tàkkusaan ji ñu doon julli léegi daa amul lim ñeenti rakka la boo defoon ñeenti rakka bu baax boo defoon juróomi rakka du baax dafa amul lim dafa am itam waxtu boo ko defoon ci waxtu wu dul waxtoom du wér kon loolu dafa bokk ci jaamu yàlla kon kon nag boo wutee mbir moo xam ne jaamu yàlla la goo xam ne tënkuñ ko ci waxtu wutaluñ ko am lim wutaluñ ko place yow nga wutal ko am lépp wutal ko place wutal ko waxtu wuñ koy def loola moo koy def bidaa bu booba loolu ñuy tudde bidaa idaafiya mooy bidaal ak jaamu yàlla la woon waaye la nga ca yokk moo ko def bidaa te bu xasee nekk bidaa nag lépp yàqu su ko defee kon moo tax euh, cheikhul islam ibnu taymiya di wax ne wal bidaatu maqrudatun bil furqa kama anna sunnata maqrunatun bil jamaa nee na bidaa foo ko fekk mook tàqalikoo ñooy ànd comme ni nga xamee ne sunna foo ko fekk mook ànd ñooy ànd ñu topp sunna rek te muy dëgg ci ñoom fokk dañuy mën a ànd waaye biddaa moom nee na fu mu am rek tàqalikoo daal di daal di am ndax kenn ku nekk da ngay daal di am sa yëfi bopp yoo xam ne doo ca ànd ak ña ca des te da ngay jàpp ne nag yow yaa gën la ñu ci des moo tax borom bi tere ko ne wala tattabiu subul fa tafarraxa bikum an sabili borom bi dala wax ne wa man yusaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa saat masira suñu borom de di ñu wax dansé bi nekk ci jaar ci weneen yoon wu bokkul ak bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon mu ne wa man yusaqiqi rasul ku ŋaayoo ak yonent bi mel ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow nga déclaré guerre bàyyi sunnaam gannaaw boo xamee ne leer na la ba noppi min ba'di ma tabayyana lahul huda leer na lii wér na ne lii mooy sunna nga topp weneen yoon woo xam ne bokkul ak yoonu jullit ñi wa yattabi xayra sabilil mu'minin suñ boroom nee na foofee mu féetale boppam bàyyi sunna foofa laa koy féetale te bu faatoo danaa ko lakk ci jahannam wa nuslihi jahannam wa saat masira yonente bi alei salatu delloo wax ne man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd diine ji ci indi lu ci bokkul ñu delloo la te lu ci bokk moom lépp ñëw na xanaa kay loo xam ne nit ñi defuñu ko moo tax man ahya la man ahya sunnatan ku dundal sunna boo xam ne mi ngi fi waaye nit ñi dañ koo xamul woon defuñu ko woon waaye bu dee lu ca bokkul moom loola mënta bokkati ci lislaam ndax lislaam mat na ba pare kon lu ci bokk rek ñëw na kon lim ne maa laysa minhu li muy tekki mooy dangay ngay dégg sax ñu koy lay ne waaw su fekkee li nga andi nag ci la bokk su fekkee ci la bokk la andi woo ko fi mi ngi fi woon ndax lu ci bokk rek ñëw na moom ndax su fekkee am na lu ci bokk te ñëw ñëwagul kon al yawma akmaltu du wér kon al yawma akmaltu du wér kon man akmaltu lakum diinakum diina ji mat na mat na kon li ci bokk lépp ñëw na mën naa am lu ñëw loo xam ne kenn appliqué gu ko nag kenn jëfee gu ko yow ma ko tàmbalee jëfe nag fàttali ko nit ñëw wana jëfin wa yaa dundal sunna boobu yaa dundal sunna boobu waaye du sunna boo fent du sunna boo andi amaa lu ci bokkul moom bokku ci te lu ci bokkit lépp a ngi ci ñetteel ba ci yi nga xam ne dana andi tàqalikoo gannaaw bu réer jàllee te wax dañ la réer mooy jur biddaa waaye biddaa it mooy jur taasub muy fanatisme muy farfarloo fanatisme day juddoo ci biddaa ndax biddaa borom biddaa yi la ñu fent seen bi bis ba wala seen mbooloo ma wala seen kilifa ga moom la ñuy bëgg a teg ci kaw ñëpp dañuy daal di fanatique ci loolu gisatuñ lu dul lool waaw dañu naan ñun suñ bis bi rek la ñu am waaw suñ bis bi rek la am wala suñ dëkk bi rek la am xam na wane ne kon yeneen bis yi ñoom bokkuñ ca yeneen mbooloo yu bokkuñ ca yeneen dëkk yu bokkuñ ca bis bii rek lañu am da nga koy dégg bu baax loolu fanatisme mu ñëw ba ñoo ko fent ba noppi ne moom rek lañ am nag waaw ah, li muy tekki mooy ña ngay ña ngay diggante ak ñeneen ñi ci des ah, bi ku ko jàppal jàpp la ku ko jàppalu duñ la jàpp waaw waaw boobu daal ci la ñuy jàpp nit ci la ñuy ba nit te bis bi ñoo ko fent te jullit li nga jàppee yàlla la war a doon li koy bàyyee it la war a doon waaye wërta doon yow loo tegal sa bopp loo xam ne ne ci ngay jàpp nit ci ngay ba te yaa ko fi teg yow ak moom itam moom it mu wut lu muy jàppee ak lu muy bàyyee su ko defee nag gis nga kon réer ga mooy dem dañuy jurante rek réer moo jur bidaa bidaa moo jur fanatisme waaw su ko defee nag yooyu mooy daal di nekk yi nga xam ne mooy tàqale jullit ñi moom la borom bi wax ne wa ida xiila lahum ittabiu ma anzala allah qaalu bal nattabiu ma alfayna alayhi abaana déggal fanatisme bi ñun dañuy topp li suñuy bàyyi nekkoon suñuy bàyyi waaw gis moom ay bàyyam ñoom la faral ak lu ñu mën a nekk lu mu mën a doon rek nee na moom lay topp moo a borom bi ne awalaw kaana abaahum laa yaqiluuna shay'an wala yahtadun su borom ne ba ci sax seen bàyyi bu fekkente ne ñëpp xam nañ ne amuñu woon xel amuñu woon xam-xam ñu tardé lañu woon donte noonu lañ meloon it lañ nekkoon lu mu réer réer réer bëgg a faral seeni bàyyi rek dana tax ngeen ànd ca ak loolu la koy waral mooy fanatisme googu mooy taasub googu mooy farfarloo googu moo tax gis nga Ibrahim alayhi salaam ba mu laajee bokkam ya waaw lii ngeen di jaam maa taabudun xaaloo naabudu asnaaman fa nazalu laha akifiin ñun de ay xërëm la ñuy jaamu te duñ fi jóge fu mu toll rek noonu fa toog di ko jaamu mu ne leen waaw hal yasmaunakum istad'uun aw yanfawnakum aw yadurruun waaw ndax xërëm yi ku leen ñaan danañ ko dégg dégg nag buñ ko dee wax mooy dégg man koo faj ndax bu dee bant moom mën na laa bañ a dégg mais su dee nit la mën na laa dégg mais du ko faj moo tax borom bi ne walaw sami'u mastajaabu walaw sami'u la ko gis nga xam na xërëm yoo xam ne dañ dégg ndax mu dee nit la dana dégg nit mën koo jël def koo dana dégg boo ko mu dégg mais bu déggee du faj bu déggee du faj gis nga alxuraan day ëmb jamono yépp ndax tey portable yi am léegi même man ngaa ne ca bato ba muy bëgg a lap wala ca avion bu muy bëgg a daanu nga woote ca sa portable woo kilifa ga nga yaakaar ne ko kat avion baa ngi bëgg a daanu wala bato baa ngi bëgg a borom bi ni bu ko déggeen mënu ci dara wala sami'u mastajaaboo na ko gis nga kon mën na koo dégg waaw wala sami'u bu ko déggeen mastajaaboo du répondre maanaam la ca war ci mu def ko ah xanaa ah, noo ngi ñaan de yàlla leen yàlla musal xanaa loolu waaye daal la ñëw intervenir fi saasi de loolu mënu ko te ne borom bi ne nag bu yowmal xiyaamee nag sa bokkaale googu nga ko doon bokkaale da koy wedd wa yowmal xiyaamati yakfuruuna bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu xabiir kooku nga doon booleeg yàlla fi nga waroon a wooyee yàlla nga woo fa nit te mënu ca dara bu yowmal xiyaamee sax nag day weddi ne lu taxoon nga di ma woo man waaw man séquma woon ak yow dara ba nga di ma woo wa yawma alqiyamati yakfuruuna bi shirkikum wala yunabbi'uka tax cheikhul islam ibnu taymiyya di wax ne min huna yu'rafu dalalu man ibtada'a tariqan aw i'tiqadan za'ama anna al la yatimu illa bihi mu ne fii la ñuy xamee réeru ku aw yoon wala nga andi ab pas-pas boo xam ne da ne ngëm yàlla du mën a mat lu dul ku ci boolewul loolu nga andi ma al ilmi bi anna rasula lam yadkurhu nee na ànd ak ñu xam ne nag loolu moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam tudd ko fenn jàngalewu ko te nga wax ne léegi ne ngëm du mën a mat lu dul ko ci boole lii lii ma andi daal sama yoon bii sama mbir mii ma andi sag njulit du mën a mat li fee jëloo ko defool samay sart yi ma mu ne wa ma xaalafa nusuus fa huwa bidatun bi ittifaaqi almuslimin nee na lépp lu way andi te mu juuyoo ak texte yi nga xam ne mooy alquran ak sunna loolu bidaa la ci loo xam ne jullit yépp d'accord na ci wa ma lam yu'lam annahu xaalafaha faqat la yusamma bid'a nee na loo xam ne nag xamuñu ne wuutee naag texte yi nee na loola kenn du ko tudde bidaa maanaam su fekkente ne loola am na dalil mën naa dellu ci biir texte alquran yi ak sunna yi loola ni ma ko waxee booba féntoo ko lu fi nekkoon la rek nga dundal ko moo tax kon ñett yooyu mooy yi gën a jiitu ci yuy tàqale jullit yi ba ko ñeenteel nag mooy ittibaawul hawaana mooy topp bànneex réer ane la mooy jur bidaa bidaa mooy jur taasub muy fanatisme fanatisme googu nag mooy jur itam nag topp bànneex ma ne kooku ñuy faral di ko wax ne yaaroo nit ya moom it loolu da koy mujj neex donte moom sax réer ku xam la parce que ittibaawul xawaa moom ñi muy li ki muy tàqale mooy ñi xam lay tàqale mais ñi xam moom réer tàqalewu leen ndax kenn ku ne xam nga xam nga ku la raw xam nga ko xam nga ne kii lu ko nit ñi xeeb-xeeb sa mbooloo mi lu ñu ko xeeb-xeeb moom yow moo la raw xam nga ne boroom xam-xam la waaye nag xeeb gañ la koy xeebal nag daf lay neex yow daf lay neex na nga ànd ca ànd ci na dafa xeebu donte xam nga ne xeebuwul waaye nag dafa laa neex ndax comme dañ lay bëgg a jël teg la ci kawam te loolu dafa neex ci sa bakkan dafa neex ci sa bakkan loola da ngay daal accepter loolu loola mooy ittibaaxul hawa